rom saar fukk gannaaw loolu ne nit ku nekk déggal ñu yore baat ci kanamam ndaxte amul njiit lu fi yàlla sampul njiit yépp nag yàlla moo leen fi teg kon ku leen bañ a déggal ndigalu yàlla nga lànk te ku def loolu yoon dina la dab kuy def lu baax warul a ragal njiit li kuy def lu bon moo ko war a ragal soo ko bëggee bañ a ragal nag kon defal lu baax te dina la tagg ndax yàlla ko dénk liggéey boobu ngir sa jàmm waaye sooy def lu bon war nga ragal ndax du cig neen la ame jaasi yi àtte ñu yàlla la ngir wàcce meru yàlla ci fay ku def lu bon kon fokk ngeen déggal ko waxuma sax ndax sañ-sañam boobu waaye it ngir seen xel dal gannaaw yàlla sa njiit yi liggéey boobu te ñi ngi ci kon faw ngeen fay galak jox leen ku nekk cëram ku ngeen war a fay galak fay leen ko ko ku ngeen war a fay juuti fay leen ko ko ku ngeen war a weg weg leen ko ku ngeen war a teral teral leen ko bu leen amel kenn dara lu dul mbëggeel ndax ku bëgg sa moroom wàccoo nga ak yoonu musaa ndaxte li yàlla yépp yi deme ni bul njaaloo bul rey nit bul sàcc bul bëgge walla leneen ndigal lu mu mën a doon wax ji moo leen ëmb nanga bëgg sa moroom ni nga bëggee sa bopp ku bëgg sa moroom doo ko tooñ kon ku wéy ci mbëggeel matal nga yoonu musaa te liitam am na xam ngeen bu baax jamono ji ñu toll jamono yeewu jot na ndax léegi sunu mucc gën na noo jige ca banu dooree gëm guddi gi màggat na bët a ngi bëgg a set nanu bàyyi nag jëf yu lëndëm te ràngoo gànnaay yi nu yàlla jox ngir dund ci leer gi gannaaw nu ngi ci leer gi na sunu dund rafet bu nu naan sàngara ba màndi tey bànneexu bu nu njaaloo tey defi ñaawteef ak suñuy cër bu nu xuloo mbaa nuy ñeyante waaye gànnaayu leen yeesu kirist borom bi te bañ a topp seen bakkan ci bëgg-bëggam yu bon